position ba mu ca jël nam ca radicale nam ko fonkee ak importance bi mu ko jox mu ne ma laaj jibril ñii ñan la mu ne ma ñii ñoo yore tasbihaat subhanallahi ñii walhamdulillahi rek la leen yàlla jox ñii wallahu akbar rek la leen yàlla jox ñii dañ taxaw rek ne allahu akbar seen taxawaay boobu balaa ñu koo bàyyi bés pénc di sàbbal nag la leen yàlla jox moo tax yàlla ne ka annahum bunyaanun marsuus mu ne ñu nga mel ni bâtiment buñ taxawal amul dëng-dëng amul dara yonent bi ne ma fekkaat ñeneen ñoo xam ne ci asamaan yi ñoom dañoo ruku rek maanaam dañ téye ci seen bëti om ne ñu ngay wax la wax rek te siggi bés bañ ca taxaw ne am ñoo xam dañ siggi taxaw nyom, am ñoo xam ñu nga sujud am ñoo xam ne ñu nga toog di sama borom ne ma kuréelu malaaka yooyu nga romb yépp ñuy def xeeti tasbihaat yooyu xeeti sàbbal yooyu dama bëgg nga wax sa xeet wi ne leen mën nañoo raw malaaka yi suñ nyom sa ndigal ndax ñoom kenn ku ci rek lay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 جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء yonent bi ne am na ci ñoo xam ne yàlla nee na am na ci malaaka yoo xam ne sujud bañ sujud ñoom ñaare laaf rek lañ am am na ci ñoo xam ne ñetti laaf lañ am am na ci ñoo xam ne ñeenti laaf lañ am mu ne waaye am na ci ñoo xam ne nag dolli naa leen ciy laaf loo xam ne xamu leen ko xam nga jibril ñaata laaf la amoon junniy laaf te yonent bi nee na benn laaf rek la daan tàllal asamaan ak suuf yegsi nee na benn yoon la mos a tàllal laaf yépp mooy keroog bi mu koy yóbbu isra wal mi'raj ak keroog bi mu koy indi awwalu aaya ci alquran mooy iqra yonent bi ne bés boobu ñaari bes yoy ci la jibril massa talal daraja ji ko yalla jox yépp neena sudul lolu masu ko talal neena lu événement reuy bu jibril di joge asaman di ñew ben rek lay firi yeksi té waxna ci début bi ngeen dégg ko yonent bi ba muy wax dafa ne digënté suuf bi ñu nek ak asaman bi ñu tim ku ko doon dox doxu juróomi téeméeri at la 500 ans ci waruwaay wi gën gaaw te taxaw jibril tàllal benn laaf rek parce que alquran dañ ko jëlee baytil maamur ci laylatul qadri indi ko ba ci asamaan bi fi la ko jibril doon fekk laaya par di indi saar par saar di indil yonent bi ci laylatul qadri moo tax inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul min alfi shahrin bi nag ne malaaka yàlla ne ko malaaka yoo xam ne ñeenti laaf lañ am mu ne am na ci ñoo xam ne nag maa leen dolli ay laaf yu ngeen xamul ñu ne ko yan ak yan te dinaa ci ñëw mooy catalogue bi ma doon wax soxna Asi xam nga nit ñi gàtt xel weesuwul fii ngeen bal ku nekk ci ñun tey boo feebaroon dem hôpital ci médecin bi nga gën a wóolu ne ko dama feebar lii moo may métti mu xool la ne la effectivement looloo lay métti yootu ar këyit bindal la ordonnance demal pharmacie jënd amul kenn ku docteur di bindal ordonnance nga ne ko lu muy amna am ko ko laaj parce que xam nga li muy jëriñ xam nga ne faj la lay jëriñ da ngay waaxu la jubali pharmacie ne pharmacien bi am mu xool dugg ci biir génnee kos kosete kosete ne la waaw fayal mille francs nga ne ko waa ah, dimbale ma nag wax ma nuñ koy naanee fekk bu la ko médecin ba waxul mu ne la waaw docteur bi de mu ngi ci bind ñaar suba ñaar bëccëg ñaar ngoon deux matin midi soir du noonu boo ñibbisee loo njëkk a def respecté naanin wiñ la jox est-ce que sañ na kenn ci ñun sañ na ni ah médecin bi daal dafa dafa xaw a kii daal moom daal ñaari ñaari daal dafa yemba mbaay bàyyil ma bàyyi ba ngoon ma boole ñaar ñetti ñeent yëpp naan ko benn yoon est-ce que kenn ci ñun xelam may na ko lool moom kañ da ngay xëy naan ñaar te naan sa doom dimbale ma de bu ma ko fàtte de garab yi bu ma ko naree fàttee fàttali ma ko wala de ku mel ni bàyyi ale jum danaan mbay dimbale ma ci sama garab yi de bu ma ko naree fàtte fàttali ma ko walla déet waaw kañ parce que yegg na ci mage foo xam ne xëy na xel mi léeg-léeg mu faay waaye dana am kum ko wakiil sama garab yi bu ko fàtte lu tax bëgg a wér yàlla mi am médicament nag xam ne nit ci feebar la dëkk ndax roox roox feeg dugguñu àjjana roox du wér saa bu nekk dafay feebar li koy feebar xam nga lan la xool lo warta xool wax loo warta wax lamb loo warta lamb fóon lo war fontu loo warta fontu xeñtu loo warta xeñtu wax lo warta wax doxi loo warta doxi jàpp loo warta jàpp te lii kenn mënu cee mucc ak xalaat loo warta xalaat gis nga ku mucc ci yépp bi la gën a të nag xalaat loo warta xalaat boobu ñoom sëriñ babacar si ñoom sëñ abdu ñoom seydal xaaji malik ñoo ci mucc xanaa ak ñoom sëñ sax waaye man de mucc ma ci man moom laal yeeg wax yi sax mucc ma ci moom waxuma laak yegg nag ci xalaat sëñ Abdou moo ko bind bu leen ko wéy mu ne man Abdou rus naa sax toog di xalaat lu ñaaw waxuma laak di ko def nee na mosul romb sax ci sama xel ma traversé wul benn yoon ci sama xel ma xalaat lu ñaaw man ab sëñ Abdou bind na ko toog na ci Tiwaawan it ba mu yàgg rongoñam di di di sotteeku sëñ Mbay Mansour moo ko nettali mu ne ma ne ko papa looy jooy lu xew mbaa jàmm mu ne ko Babacar dara seytaane rek laay ragal mu mën mënee ma ba lu ma mësta dal dal ma mooy xalaat lu ñaaw moom laay jooy pour yàlla dimbale ma bu mu am bu mu am bu am mukk Abdou di xalaat lu ñaaw waxuma laaj nag di ko def gis nga nag feebar yooyu nga xam ne mooy ganee si nit yàlla jox na nit ay médicament yoo xam ne bu feebar bi ñëwee rek mu ne la naanal ñaar gaaw ndax mu rey ko ñaar yooyu mooy ñaari rakkay suba mu ne la ñaanal ñaar suba boo xëyee jullit ñaari rakk mooy ñaari médicament ngo nga naan ñaar waaye balaa jant bi di fenk nga xuloo fi xeex fi xaste fi saaga fi wax fi lo warta wax doxi fi lo warta doxi ciipatu ko fa te ciipatu xelu ko warta xelu yalla ne la médicament bobu dose bi jeex na jëlalaat yeneen ñet <laughs> yeneen ñenti comme bi ci bi genn na sa yaram tang na jëlal ñent jëlal ñenti médicament moy ñi tisba julli tisbar gaaw nga julli tisbar mu ray microbe yoyu waye fi nga tisbar sa xel dem ci pap mbeng mansour gueye nga wax fi loo fi war wax def fi loo fi war def ci diggante bi yàlla ne la ah, boobu expiré na gaawal nga jëlaat yenen ñetti médicament jant baa ngi so sa yaram ngi fasu boo jëlee ñeent mu gaañ la jëlal ñett mooy ñeent ñetti timis nga naan ñetti comprimé ñibbisi ci kër gi reer bi neexul xëy na la xëy na la xëy na euh, guñ njoñ la la neex yow xëy na kii fiiriir la fekk ci kër gi xëy na kii maafe biñ desaloon ci ngoon si moom la fi fekk xol bi tàng ak célibataire yi mel ni Mansour Gueye te amuñu soxna añ ñawu fi añ loolu lañ fas yéene reere xol yu tàng yooyu yëpp yàlla ne la xol yu tàng yooyu balaa ngaa tëdd giifal ko jëlal yeneen ñeenti comprimé nga naan ko ndax xol bu tàng boobu giif leer yi mën a dugg ci yow ba nga mën a wax ak yàlla mu ne la kon jëlal ñeenti comprimé muy ñeenti rakk nga julli ñeenti rakk mu ne la tëddaale ko balaa ngaa yeewu mu faj li mu war a faj mu ne la waaye ah soo bëggee ñeenti rakk yooyu am résistance nag wa yazidu fil xalqi ma yacha dollil ma ciy naafi la kon defal safa witr boog au moins wa yazidu fil xalqi ma yacha gis nga yàlla ne boo dollee rek ma dolli moo waral kii di naafila kii ne ma naafila wante wu ma ci man ci safa wiitar laa yem kii ne safa sax wiitar wu ma man man damay julli gee rek dem tëri sama yoon newul ci safa wiitar waaye yooyu nag yàlla dajale muy ay médicament mu jox ko nit ne ko dee ko naan pour wér médicament yooyu nag nit am ñàkk fayda gu day ni day bàyyi ba jant bi so mu boole ñaari comprimé plus ñetti comprimer plus ñeenti comprimé naanandoor yëpp bu moytuwul du yeewu mooy ñiy def grossiste xëy suba dem liggéey ba ñibbi si nag fas yéene nag kucc kuccal loolu sax du sigg siggi rek la parce que na ko war a defee doo ko ko defee kon wali salaatu nuurun julli dafa am leer yu ci nekk distance boobu la ko yàlla eh, étanlé pour nga war ko ci julli boo ci si yéexee rek dafa am lum lay wàññeeti léegi moo tax boo ci waxtu wi am tiyaabo boo paasee bu waxtu wi paasee ba nga fay nga am tiyaabo am bakkaar kon yaa ngi gën a lëntal sa bopp yonent bi salaay sallam nag wax ni ku defal ñaari rakkay suba tisbar takusan timis ge, mune malaka malaaka yooyu mu romboon ba muy dem di rañaan ñii am ñaari laaf soo jullee suba mu ne malaaka yooyu am ñaari laaf luñ sàbbaalal yàlla jaamu ko yàlla yàlla jox na la tiyaaba ju toll noonu boo jullee suba mu ne ñi am ñaari ñetti laaf soo jullee timis yàlla jox na la darajaay malaaka yi am ñetti laaf luñ def ci jaamu yàlla lum rëy rëy rëy yow boo jullee timis am nga lu toll noonu mu ne soo jullee tisbaar tàkkusaan ak gee muy ñeenti rakka mboolem malaaka bu yàlla bind mu am ñeenti laaf la muy def ci jaamu yàlla ak i tasbihaat muy sàbbal yàlla yow am nga jëmmi daraja jooju te yaa ngi sa biir kër jógoo fi boo dee jigéen boo dee góor yaa ngi ci biir jàkka ji imam si wala imam di ba jiite la walla déet nga am li nga xam ne yonent bi daj na lu ne pour am ko yonent bi nag ne waxtu woo toogee di taaya teewlu li ngay taaya mu ne la la wóor na yaa ngi xadaratul qudsi na ma fa nekkee woon di def mu naajaat ak yàlla waxtu woo toogee di taaye yonent bi nee na yaa ngi mel ni ku yéeg xadaratul qudsi na ma toogee woon ak yàlla di def mu naajaat ak moom mooy di déeyante ak moom na la wóor ne yaa ngi toog di déeyante ak yàlla fi nga toog ci jàkka ji wala fi nga toog ci sa biir kër yow jigéen li tax may préciser jigéen mu julli ci këram moo ëpp tiyaabo ci moom mu dem ca jàkka ja lu naqaree wax nag rek ci jamono bii ñu toll mu ne gis na benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne xayru masajidu nisaa'i qahru buyutihinna maanaam ñu nottu toog ci seen biir yi néeg maanaam euh, jàkka yi gën ci jigéen mu ne jàkka yi gën ci jigéen ñi mooy ñu toog seen biir néeg mooy seen diggi néeg. moo gën ci jàkka ji. ci ñoom. Ah, yonent bi wax na ko ci beneen xadis mu ne. jigéen mu julli ci chambre à néeg ba muy fanaan moo ëpp doole mu julli ci saal bi saal bi ci kër gi. nee na mu julli ci saal bi moo ëpp doole mu julli ci ëtt bi. nee na mu julli ci ëpp ëtt bi moo ëpp doole mu julli ca jàkka ja. Jigen mom nu muy gën a génnee rek tiyaaboy julleem di gën a wàññeeku contraire bi la nag ab góor góor mu julli ca jàkka ja moo ëpp doole ci moom mu julli ci ëtt bi jiite waa këram léeg na nga gis paa bu ci jaay jomba ñaw dem ja sama kër duñ julli bon yow boo yoree say waa kër góor ñi dañuy ànd ak yow jàkka ja jigéen ñi iaran ci kër gi loolu du lay demal jàkka ja rek yaral say kër rek ñi ku ci dem jàkka ja dana la topp jigéen ñi julli ci kër gi waaye booy jaay jomba ñaaw nag bi julli ci ëtt bi yaag ñoom yàlla ne ca jàkka ja moo la ëpp tiyaabo massa nag am na ci góor ñoo xam ne toppatoowuñ sax seen soxnaa ngi julli wala julliwuñ massa nag seen njaboot ñu ngi julli wala julliwuñ ñoom daal danañ dugg seen biir néeg julli seen julli yor seen kurus laazim yàlla ne loola la muy baax baax nga dem ca jàkka jàkku gën innama ya'muru masajidallaahi man amana billaahi wal yawmil aaxir yàlla nee na dëgg dëgg dëgg ñi ma gën a bëgg ci nit ñi ak ñi gën a gëm yàlla mooy ñi nga xam ne bàyyi nañ seeni kër ci góor ñi di dem ca jàkka ja di julli ji nee na sooy seede ku gëm yàlla jàppal ma kooku ku ma gëm la man yàlla waaye contraire ba fi ne boo gisee koo xam ne accidentellement lay dem ca jàkka ja bu takk amul doo ko fa gis bu dëj amul doo ko fa gis bu céet amul doo ko fa gis yonent bi ne maandul ci moom fa tabaarakallaahu mu ne lu kuy dem aéroport salle d'attente moo la yóbbu kuy dem aéroport est ce que toog salle d'attente moo la yóbbu déedéet da nga dem salle d'attente pour xaal sa vol ñëw nga waaxu dugg ci vol bi dem wala déet ku dem ca jàkka ja it jàkka ji salle d'attente la pour nga war a yéeg nag dem fa yonent bi demoon ba muy rañaan mooy xadratul qudsi te kooku yow mënoo ko sa jëmm du dem yonent bi rek moo am capacité jëmmam ak rooxam dem waaye yow fexeel ba bi nga toogee ci jàkka ji yow sa jëmm a nekk ci jàkka ji waaye sa roox dem na bu yàgg loolu lañ soxla moo tax ñu yebal la ci jàkka ji ne la demal aéroport aéroport mooy jàkka ji na am benn pilot bu piloté avion bi waaye pilote yi nañ doon ñaar wala ñett moo tax jàkka joo dem am na benn benn naayib wala ñaar wala ñetti naayib avion benn pilote du ko piloté ñetti pilote wala léeg-léeg équipage bi pilote bi boo ko boolee six personnes la ñuy doon wala de ñu ne la demal boo demee ci aéroport salle d'attente yéegi nag boo yéegee ci avion bi pilote bi na piloté avion bi ngeen dem mooy ilimaan imaam ahmad si wala imaam diba kenn nekk ca kanam mooy pilote bi bu ne allahu akbar war na fexe ba fusil bi wala avion bi départ na waaye ne allahu akbar mu wóor la ne waxuma la sax yow sa roox waaye sa roox ak sa jëmm ak sa xëtër ak lépp a ci biti biti jàkka ji wax waxuma la biir jàkka ji waaye biti jàkka ji allahu akbar yaa ngay cet bëtal làmb ji allahu akbar joo xam ne ba nga koy wax sa xel maa nga sàndaga allahu akbar yoo xam ne ba nga koy wax te seytaane foofu rek la mën affaire am nag Balamu muy sawar rek nga taxawal julli boo nee allahu akbar mu ne la i sa xaalis bi fi nga ko dencoon est ce que wóor na léegi julli gi yëpp dootoo ko astu bu soobee yàlla da nga naan balaa gaa di bi xaaral ma gaawantu julli gi wallahi balaa ko gaa yi di ubbi moo tax yonent bi salaay sallam nee na bari na ku julli ba sëlmal soo jënoon julleem teg ko ci balance jël laafu yoo teg ko ci balance mune ne laafu wi dana kon mooy wut da doon këpp këppal rek mu ne waaye bari na koo xam ne dana julli ba sëlmal boo jëlee julleem teg ci balance jël jabalu Uhud ñi dem Màkka xam ne jabalu Uhud teg ko ci balance mu ne seen julli gi dana daaneel jabalu Uhud ndax diisaay mu ne mooy ña nga xam ne alladina hum fi salatihim xaashiun ñi nga xam ne ci seen biir julli ñu ngi cay fuglu yàlla di ca teewlu yàlla waaye julli goo xam ne yow danga nga koy def rek gymnastique gymnastique rek nga koy def mooy këpp-këppal xaaral ma ñëw julli wallahi allahu akbar duñ wax sax allahu akbar allahu akbar allahu akbar kenn xamul sax lu ñuy wax allahu akbar bari na koo ci julli balaa nga koy xam soxna asi makka jot gis nga maa ngeen baal ma sëñ Isa maa ngi maa ngi jeexal waaye billaahi ku ci yóbbu mag makka léegi nga rey ko bi ci desit bari na mag muy dem makka woo ko laaj ko ba xam ndax mokkal na faatiha soxna aasi maa gis ñetti mag ñoo xam ne ku ci nekk am na 60 ans ca màkkatal mukarram mokkaluñ xul yaa aywal kaafiruuna mag mu mokkalul xul yaa aywal kaafiruuna te màkka la nga fay jàng yépp xul yaa aywal kaafiruuna faatiha la xul yaa aywal mag mu mokkalul xul wallaahu ahad <laughs> kooku mooy lan lu muy uti màkk man maa ci teg sama bët kenn nettaliwu ma mu ne ma doom luy xul wallaahu ahad ma ne <laughs> ah ma ne ko yaay fi nga ko laajee baaxut fi nga ko laajee it baaxut ma ne ko fii dañ fii tere wax bi ci desit fii nga ma ko laajee da nga yéex senegal nga ko waroon a laajte door a ñëw ma ne ko mënuma fi nekk nag di la ko expliquer yow daal taxawal fa li nga julli rek loo mën daf may tardeel sax man te faw boo boo wëree kaaba gi ba pare da ngay julli ñaari rakka maqaamu ibrahim rakka bu njëkk bi faatiye la xul yaay wal kaafiroon rakka ñaareel faatiye xul wallahu ahad booy armal ngay armal boo demee biiru ali bu dee sénégalais boo sangoo ba noppi jël sa làmbaay làmbaayu da ngay julli yaay wal kaafiroona faatiye xul wallahu loolu loo gàtt-gàtt àlla woo war nga ko mën am na ci koo xam ne dama ko ne boo pare lu may def ma ne ko sa talbiyaat boo sonnee ci talbiyaat yi julli ci yónnent bi mu ne ma luy ma ne ko salaatu ala nabi mu ne ma luy loolu ma ne ko allahuma xam naa ne boo ko waxee salaatu fatiha day dee xamu ko te gudd na ma ne ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mu ne ma waxaat ko doom xam munut sax julli ci yónnent bi jullit bu mënta julli ci yonent bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim moo gën a gàtt ci salaatu yi mënu ko moo tax balaa ngay yóbbu nit ki màkka toppatool diineem ba xam ndax diineem rafet na wala rafet sinon tourisme rek la fay defi tourisme mooy dem wër wëraalu taxawaalu tambaambaalu seet waat ne ñu naan ko alaaji wala ajaa fekk defu fa tus su ko defee nag nit ki li muy def daf ko war a xam julli dafa am tambale amfum am fu yem kenn sañul nga ne sama xërug bopp julli suba ñaari rakkalam nga ne naa ci dolli Juli yàq nga julli ga fi la yàlla yem loo rek nga yem soo ko koi dolli Yo yàqu na soo juumee da nga koy sujuutal yooyu yëpp nit ki daf ko xam bi ci li ëpp importance mom lay wax ba bu déwénee nag ñu wax julli muxtaar bi fi mu tàmbalee bu suba bi ak fi mu darureem fi mu tàmbalee ak fi mu yem tisbaar fi mu tàmbalee ak fi mu yem fi mu tàmbalee ak fi bu ci nekk muxtaaram ak darureem parce que Sénégal xamuñu li ñuy defal yàlla ba tey bari na ku naan ma ñëw fay tisbaar fekk tisbaar paaseegul sax bari na ku naan ma fay tàkkusaan fekk tàkkusaan tuddagul fay bari na ku naan ma fay timis fekk timis tuddagul fay te boo demee ca umdatul bayaan saraa laxdari la nee na nit ki buy julli ca xamut ni muy réparé julleem bu jullee yàlla du nangu julli gi ma dégg benn ustaas ci rajo bi am ku ko posé question du ma tudd turam am ku ko pose question ne ko man dama am ñetti at yoo xam ne sama julli régulier wut maanaam bu ma déggee dëj julli bari na fi de ku dee rek nga julli hi xaaral ma ñëw julli ji wala diw de dégg naa dee na yow dee mooy tax nga julli am koo xam ne boo amee problème rek fan yooyu yëpp day muuru di julli rek ah bu dee Mansour gi du jóg jàkka ja bañ naan yi Mansour léegi daa soppeeku de fekk dafa am lu ko jaaxal lu ne këtt ne jonn buy faju mu toog am na ñoo xam ne bu imam si dootu leen gis cinquante rek bu ko amee ci seen poos imam si dootu leen gis duñ dem jàkka ja moo tax yàlla ni mu rek noonu léegi nag yow ngay toll ci julli te xamoo nooy jullee ñu posé ko question mu ne ko man dama am ñetti at yoo xam ne sama julli régulier wul su ma jullee tey daal balaa may jullee ti accidentellement léegi nag dama fas yéene tuub di julli normal nu may def xam nga lu ko saal bi toll yàlla yaatu na yàlla ku baax la fi nga fa nga fase yéene rek commencé ne dootoo ko bàyyi li ci des yëpp yàlla jéggal na la ko ma ne ko ah déet du nii di du nii di xam nga kooku sànq nañ ko te ki ko sànq mooy ustaas bi ci rajo bi du noonu ngeen baal julli dañ koy fay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla wax na ko ne wax na yonent yàlla daawuda ne ko waxal ma sa xeet wi ne leen ku ñëw fii ci man yàlla indiwaale benn boru julli boo julliwul dinaa la mere man yàlla yonent bi nee na ku yàlla mere moom du la ràmm ku yàlla ku yonent bi ràmm wut foo jëm naari walla déet benn julli la benn julli ñu ne kon nooy def ñu ne julli boo julli wut da koy fay te lii may wax ku nekk ubbil laxdari ma nga ca julli dañ koy fay ku bëgg nag dëgg la am na ñoo xam ne dañ naan du ma fayantoog yàlla yàlla kenn mënta fayantoog moom am na ci ñoo xam ne yegg nañ sax ba bu ñu amee boru koor dañ naan ah damay bàyyi mu passé parce que yàlla kenn du fay lan teg moom ah yàlla kenn du fay lan teg moom tem ne fay leen su ko defee loolu bu ñu ñëwaatee déwén yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba booba parce que julli lu ñuy war di waxtaanee la mooy li yàlla gën a soxla ci nit ki te nit ñi xamuñu ko nit ñi dem màkka moo leen gënal julli bari na ko dem makka bi ñibbi si tax jëm bi du ko sëpp ci suuf ndax lan bëgg na tiiturub alaaji wala aja jeex na xam nga aja yiñ bind ci journal bi ñu fekk leen ñu dem di tux yamba ben jàpp leen yóbbu ca kaso ba ñoo ñees ka aja la te dem nañ makka ñetti aja ñetti aja seen sœur a dee seen sœur ñoo nyudem dee ñu dem ñu dem ci dëj ba ndekete fiñ dem ci ba ñu nga di muqi yamba tal sen cuuraay ma ne xam naa kenn mer ci gaaya dem wooyi police fa lañ leen fekk ne leen nuus yóbbu leen ñu ngi ci kaso bi waaw waaw ah. mu ne am na ci ñoo xam ne bañ leen seetee seen bagage yi ay prévar prévar préventage nañ naka lañ ko wax prévar préservatif lañ fa fekk ay capote lañ fekk ci seen saag yi te seen sër a moo tax kuy dund kuy dund talal sa bopp loo war a def def ko loo war a wax wax ko loo war a tracé tracé ko gis nga boo dee gars yi nit ñi fa la ñuy commencé ngoro gi waxtaan wi jiwante yi yu bon yëpp ci nit yi lañ koy joxante rendez-vous léegi moo tax li yàlla santaane rek nekk ci boo demee bu ñu la fàttee xayrun bu ñu la fàttalikoo xayrun fekk yow la nga waroon def def nga ko julli dañ koy fay foofu lay tëjee waxtaan wi amul kenn ku yor benn julli am benn daraje bu nit am ba jullit la ko wala baalal la ko amut ku bëgg a nag xam nga nooy def dangay seet rek parce que ku yóbbaale benn julli la yàlla wa te wóorul yonent bi bi muy wax dafa ne dañ ko laaj fan la julli di waree nit ki mu wax ñaari wax mu ne ki am juróom-ñaari at sa doom mu ne boo amee juróom-ñaari at dee ko neexal pour mu julli maanaam kaay julli ma may la ñaar dërëm kaay julli ma may la tàngal boo jullee ma yóbbu la sa kër bàjjan aasi neexalee ko ko parce que da ngay fexe ba xam ne bàjjanam aasi rek la bëgg soo jullee ma yóbbu la nga seeti sa papa Serigne Issa Touré neexalee ko yooyu bu jullee ba noppi nag ah fexel nag yow it la nga waxoon nga def ko parce que boo ko deful yaa ngi koy jàngal fen yonent bi ne nag bu weesoo juróom-ñaari at ba dugg ci fukki at mu ne boo amee fukki at boo ko nee jullil mu bañ jëlal yar caw ko ba yaramam tàng téere yëpp bokk d'accord nag ne li waral caw kon foofu la julli waree li nga xam ne yonent bi dafa ne bu ko deful jëlal yar caw ko ba yaramam tàng mu def ko mu ne kon foofu boo téere yëpp foofu lañ d'accord ne foofu la julli waree mooy bi nga amee 10 ans nañ xool na ku fi am 10 ans di julli régulièrement yaay seet nag sa ragal yàlla yeneen téere yi ne déedéet fi nga majeure majeur foofu la la julli ware léegi nag teqale majeur bi mooy lan bu dee góor su saxee sikkim majeur na su tëddee guddi gënt man yu génn ci moom majeur na su amee kawaru poqataan majeur na su amee kawaru naq majeur na su toogee ba nga dégg baat bi soppeeku diis mel ni xandi te mel na doon noonu yonent bi ne majeur na moom góor mu ne nag bu dee jigéen mën na teel mën na yéex ñu ne ko am na yum mu ne am na yu mbokk ak góor am na yoo xam ne amu ko góor amu ko moom rek a ko am ñu ne ko ban la mu ne yi mbokk ak góor yii la moom jigéen su saxee kawaru poqataan majeur na su saxee kawaru naq majeur na bi mbokk la góor mooy su amee ay ween ba weenam yi taxaw rek majeur na ba mu am te góor amu ko ñeenteel ko nag mooy bu gisee règle rek majeur na nga xool nag yow bu dee góor xoolal foo ci tàmbalee julli bu dee jigéen xoolal foo ci tàmbalee julli nga daa ah, kon man li ma sànq bari na sànq naa sept yoo xam ne moom daanaka julli ko nga ne fas naa yéene fay sept yooyu borom laxdari ne noo koy fayee mu ne boo bëggee yàlla boole la ci ñi def effort ba boo deewoon tey yàlla baal la li ci des julli goo julli da koy julli juróomi yoon wala mën nga it boo jullee julli goo julli nga julli wat ko soo jullee tisbar julli tisbaar takusan julli takusan boo jullee timis julli timis boo jullee gee julli waat gee boo jullee fajar julli wat fajar waaye loolu day yàgg bu dee bor bu bari nga yor mu ne nag bu fekkee ne nag li nga yor ci bori julli dafa bari ay at la mu ne defal bi gën a gaaw boo dee ci diggante bi yàlla baal la ko ñu ne ban la mu ne soo jullee suba dangay taxawaat julli suba julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis julli gee dem ñibbi soo jullee tisbaar julli waat suba julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis julli gee so jullee takusan julli commencé waat bobo, bopp ba julli suba tisbaar timis ge so jullee timis julli wat, julli wat fajar tisbaar takusan timis gee soo jullee gee julli waat fajar tisbaar takusan timis ge boko ko defee boko boo ko defee un mois fay nga fay nga fay nga juróomi at boko ko defee mois fay nga at xanaa lii yomb na te ki am bori julli dafa xaram ci moom mu naafila na leer gis nga ñaari rakka yi ngay njëkk def balaa ngay julli tisbaar bu dee da nga am boru julli dafa xaram nga def ko xam nga lu yorel nga soxna di ko ziyaare 5 000 doo ko ne soxna si maa la avance 5 <laughs> 000 bi wala déet yorel nga soxna aasi 10 francs te mom xam nga xam na wóor na ko ne yorel nga ko 10 ndax yaa ñëw leb ko nga gis gaay di rek ngay jaay jomba ñaaw ñëw ne ko soxna si 5000 bi maa la ko siyaare moom dana am fulla ji day ne ne nga ma avance li nga 10000 fay ma 5000 bi wala déet balaa ngay maye da ngay fay bor jeex na ki yor boru julli dafa haram ci moom mu naafi la moo liñ ko nay fay rek nay fay ba borom yi jeex nag su borom yi jeexee mu di kon yi julli kenn du ko sànq yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci julli nee na ëllëg bés penc buñ bayi ñun ñëpp ci kanam yàlla ba yàlla ubbi dossier yi te foofu bay war nañ ko bàyyi xel de nee na bu yàlla ubbee dossier yi li muy njëkk dossier julli lay dana malaka yi demal leen ma directement ci dossier julli nee suñ ko xoolee gis benn julli bu man yàlla ne vérifier man li ci yépp mu ne te ko yàlla vérifié jàpp la mu ne waaye bu ñu ne ubbee dossier julli gis yépp rafet mu ne yàlla ne ub leen dossier bi li ci des yépp naa ko ko ndax julli rafet na kon loolu jar na toppatoo dossier bi ñuy ñëkk a xool ci yow kitaaban mawquutan la yàlla wax nee na julli téere buñ tëj la def ko ci sa loos moom la ñuy njëkk ubbi ko kon bu ñu ko kenn sankal Cheikh Seydi Ahmad Tidiane awraatam yii mu ñu jox bu ci nekk après julli la waaye du avant julli bu ci ne après julli la kon kooku wax na la julli boo demee ci Serigne Touba bind na téere boo xam ne moo gën a garaaw lam ca def moom dafa ne ku ku dul julli bul bokk ak moom sax ndab lu ngeen di lekk. Cheikh Ibra moo ko ci Jazbul nee na booy lekk ak ku dul julli weyam yi salte ya ca nekk bu demee ci lekk bi boo ko lekkee dootoo julli comme moom sëñ Tuubaa nee na ku dul julli bu dee bu leen ko suul ci jullit armeelu jullit ñi na ngeen ko watat ni ñuy watatee mbaam yóbbu gas suul lam ca bind ñu bari ñeme wuñ ko jàng mag ñépp keew koo ci dem këram zawiye wala jàkkaa ngi ci biir këram sëñ Touba lim njëkk a defar Jurbel mooy jàkk ndax sëñ Touba balaa muy eh, sanc Touba Jurbel la dëkkoon kër gu mag jàkk la fa njëkk samp Seyd El Hadji lu mu njëkk a samp Tiwaawan jàkk Maam Ablaye Niass lu mu njëkk a samp Kaolack jàkk Alaaji Abdallahi eh, Kan Maam Ablaye Kan bi mu demee ci Chérif Younous ne ko dama bëggoon nga defal ma xalwa ndax yàlla boole ma ci aqtab yi ci xutbu yi shérif yunus dugg ñetti fan yi xalwa xool ubbi ne ko sama borom nee na pour nga bokk ci xutbu yi di nga am ñeen fukki at yoo xam ne doo faat waxtu ci jàkka ñeen fukki at doo faat waxtu ci jàkka fajar tis ba takusan timis gee yëpp ci jàkka nga koy alaaji Ousmane kan moo ñu ko nettali mu ne maam Ablaye kan ne loolu de li ma ciy musal mooy ma tabax jàkka sama biir kër mu tabax jàkka nag dëkk ci pantare bi moom faf moo indi zawiya ba la ca kaneen mag ñëpp julli lañ fonk ba koo ci dem këram këram am na jàkk ñun ñu topp ci mag ñi nag naan mag yàlla baax na yàlla baax na yàlla yàlla bay sa tool yàlla yàlla bay sa tool te nit ñi fonkatuñu julli ku cey julli sax nu la neex nga koy defee bu dee góor ñi ci jàkka ji da ngay taxaw dend ak nit ne ko saa waay defaral jàkka ji billaay bu la xeeloo xeelu bi mu lay xeelu rek soxna asi yow da ngay bëgg a génn jàkka ji ci defaral sàppe bi xanaa julli ko yooyu yëpp insha allah bu déwénee danañ ko développé bañ xam julli li muy ñun ñëpp suñ doon julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar la yàlla wax nee na julli day tax nit ki bàyyi caacaay bàyyi sax luñ sib nee na soo julli pire di nga dem ba luñ sib sax dootoo ko mën a def waxuma la ak lu xaram li mbayka doon wax nag yal na ko yàlla yërëm nee na comme yeggaguñ ci degré boobu nag nañ julli rek nañ julli rek ba ba ñu yegg ci degré boobu ah yow rek ba ba nga ci degré boobu te ku yàgg góorgóorlu yàlla dimbale la su ko defee nag nañu fonkat julli wali salaat wali salaati nuurun azim leer gi ci julli boo liggéey bés pénc lañ koy xam buñ dekkee bay jëm yowmal xi bay jëm xiyaama barab ba ñuy wax taxaw taxawukaay ba yonent bi foofu la wax ne dinga gis ku ku dëggaat tànkam juróom-ñaar fukki junni ndëggu dëgg ci te du ko yëg ndax xataayu barab ba juróom-ñaar fukki junni ndëggu tànk jaar ci sa tànk bi dëggaat wéy te doo ko yëg yow ma naxsuru naas ba ñuy pang nit ñi pour ñu jëm ca barab ba pang mooy jiital leen pour ñu jëm ca barab ba foofu day lëndëm këris ndax yow wa jumi ak samsu xamar yàlla day jël leeru jant bi ak weer yu jëlee ko fi leer boo amatul fu ñu koy jëlee julli gi ñu daan julli ak ibaadaat yi ñu daan def nag mooy nekk leer yàlla def ko ci sa jë mu doon projecteur te li ci gën a neex yàlla dafa maandu projecteur bi yow rek lay ñiital mënu boo geesoo nii du nit boo geesoo nii du nit boo téenee du nit boo sëggee du nit yow nii rek lay niital léeg-léeg nag leer gi xawa a xermati ba yéefar yi gis ko naan waay waay jullit ñi unzuruna naqtabis min nuurikum qiila irji'u waraakum faltamisu nuuran ci la yéefar yi nag gis jullit ñi seen xar kanam yi leer nañ mel ni mel ni weeru badar ñu naan jullit ñi yée yéen jullit ñi naa xool leen ñu ñun yéefar yi ndax naqta bis ñu mën a niitu ñu mën a niitu min nuurikum jëlee ko ci seen leer yi jullit ñi nag am courage di leen tontu ne leen ah déedéet xii la waxeef na leen ñoom yéefar yi jullit ñee leen ko wax xii la waxeef na leen ne irjiu dellu leen waraakum ca àddina foofa fal tamisu fa la ñuy sàkkoo nuuran leer waaye du fii foofu yonent bi nee na da ngay gis ku ne bërët rek du am leer ne këpp ci suuf mu ne malaaka yi boole ci nag di ko diri di dóor jëme ci barab ba daan naa ko wax waxin bu nit ñi di di ree xam nga nu mu nu mu mel ku ne bërët mu xiin but ba but courant coupé yoroo tors mu ngi yottu yottal pour fas yéene taw boole ngelaw nga daw ba yem ci jàlloo këriñ ne ruur sa kanam gi ci këriñ gi siggiwaat fooy gisee wa man la lam yajal yajalillahu lahu nuuran fa maa lahu min nuurin bés ci noonu la mel ku yóbbuwaale wut leeru julli boo dekkee doo am leer boo amul leer doo mën a gis fi ngay dem boo dekkee nag boo daan julli leeru julli yooyu nga daan julli moom la yàlla di rassembler def ko ci sa xar kanam mu nekk projecteur boo dekkee moo lay niital ba nga yegg xiyaam taxaw yàlla rek la jaam ñi nga ànd ak ñoom dugg àjjana yàlla nañu ko yàlla defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba déwén ñun ñëpp nañ toog ci yar ak teggin déglu sëriñ isa insha allahu sëñ baara courant bee ñu yàqal suñu mbir rek waaye yàlla loolu la namm ni ni courant bi yàqee suñu mbir yal na ñu ko yàlla soppil muy ay fan yu gudd ba bu déwénee ñu toogaat fii traité ko point par point yàlla lu mu def rek am na lu tax su ko defee ñu jëlaat ko point par point wax nag julli lan mooy euh, daruur yi muxtaar mi fu mu yem nuñ koy defee naka la ñuy jàppee balaa jàpp cangaay am na ñu toog te xamuñ lu ñuy sangoo farata yooyu yëpp am na su ko defee ñun ñëpp ñu bokk laayante biir bu boobaa ñu wax ko nii la ñuy sangoo nii la ñuy jàppee nii la ñuy laabee ba ba ngay taxaw julli jublu xibla fa tabaarakallaahu sëñ Isaa wax ji bari na te amul njëriñ da nga yiiw fa tabaarakallaahu da nga baax rek léegi la bi courant coupé gis nga ko mënoon na bàyyi bi bi bi courant bi tàkkee waaye dafa bàyyi ba courant coupé man nag maa koy wax ala niyatan moom sirlam la ko def man alaniyatan laa koy def bi courant bi coupé rek la woo Mansour gi mu ñëw mu tuuf ko dara ne ko joxal ma ko shérif xam nga kenn yëgu ko waaye luma luma luma bokal lu ma lu ko wax ñëpp dégg ko su ko ko ci ah, kon nag wa <laughs> wa yow li la sama bàyyi nga ndax mok sama bàyyee daan ànd sa sa sa xaritu baay sa baay la te ko ko war ko war teral sa baay te sa baay new boo gisee sa xaritu teral ko mom ba sama papa di sol costume bu mosaan ñëw fii Sénégal imam mbayka la daan àndal mbayka mu ngi ma koy nettali bis mu ne ma ak mbayka imam mbayka rahmatullahi alayhi wa radiyanu ak misbah ba kon Medina te sama papa tuddee na ko sama mag bi ma ci moom moom lañ ko nee na dañ daan def bu ñuy génn ñoom ñëpp costume la ñuy sol mu ne waaye bu ñu solee costume bu ñuy ñibbi si àddiya ji ju bari mu ne mu gis ne bu ñu solee yérey wolof xaftaani naar yooyu yooyu bu ñibbi balaa ñoo ñibbi si àddiya ji day bari mu ne mu ne ko Chérif Mountakha kaay Chérif Misbah kaay dimbale leen ñu ci costume yi bàyyi leen ñu ñun ñuy costume yi ñun arabisant yi te yéen ngeen di sol yérey wolof ndax àddiya ji daf daf ñu intéressé ñu bàyyi ka moo ko waaw ah, mbay ka moo ko waxoon sama papa ne ko addiya ji daf ñu intéressé ndax da ngeen ñuy sédd te bu ngeen costimo duñ ñu jox addiya waaw ah, loolu nag dafa yàgg booba judduwuma man kon ñun fuñ la gis rek buñ ko amee buñ ko amul sax war nañ ko yelwaan teral la loolu mooy suñu wareef ci yow waaye sëñ Issa ñu ngi lay sant bu baax soxna Asi ñu ngi lay sant imam si ñëpp ñu ngi leen di sant courant coupé na terewul ñëpp toog nañ ah, ñi am ngant rek ñoo yeewee courant bi kum liggéey doo liggéey mag ñi liggéey nañ liñ liggéey te amuñ woon courant wala de soxna Asi sa maam liggéey na lim liggéey ba am ko te courant soxlawu ko wan dëgg la nag jamono moo toll foo xam ne am na loo xam ne boo ko amul doo mën a liggéey waaw ndax jamono développé développé ba dugal ñu ci ñu wartoon a dugg waaye sëñ Issa fii mu toog jógu fi yëngatuwul mu ñu ngi koy sant di ko gërëm ci kanamu ñëpp daayira bi daayira soppe nabi moom mooy responsable moral suko ko lima li ma wax ci njëlbeen mu ne dem datu sang bés seen bésu conférence bés sangam la maay ñëw waxtaan ko wala maay yabal ustaas bi nekk sama kër mu waxtaan ko waaye daf leen ne dem leen yen shérif mu jàpp ngeen ma bum ca yem na ko waxtaan ñu dajee gore mu feddali ko su ko neexoon du ko ci fekk ndax nit ñi fim mu ne as mbooloo jaral na leen lu ne soxna as ku ci ñetti nit di ñëw ci yow di dem ci keneen sax nga mer ku ci ñetti nit di ñëw di la seet si régulièrement nga yëg bés ne dem nañ seeti soxna asi wala seeti nañ sëñ Issa rek nga commencé waaw Mansour Gueye nag daf ma yab waaw léegi lu muy uti kër soxna asi lu mu fa dut uti lu ciy sa yoon yow xanaa kon Mansour Gueye commercial nga ko nga ko fas yéene def ah yooyu yëpp nag ñu ngi la ciy sant nit bu defee lu baax dañ koy wax ci penc ba ñëpp dégg ko ndax ku bëgg a baax roy ca ñu ngi lay sant sëriñ isa nga baal ñu àq bu baax soxna asi yow nga baal ñu àq ci jotaay bu yàgg bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñun ñëpp ñu déglu sëriñ isa bu noppee ah sëñ ñaanal ñu yàlla bismillahi alhamdulillahi alladi la ilaha illa huwa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولاي بي سيرمني جيك بو موشلو الشيطان ان سنت يالا دجول دجي صلى الله عليه وسلم دي نيو نيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته nee ñi ngi jiital ci nuyoo bi boroom dëkk bi. di ci jiital imam dëkk bi. ñëw ci koñ bi di nuyu imaamu koñ bi. di ko ziyaara di ko ndokkeel. di nuyu délégué quartier bi. di ko ziyaara di ko ndokkeel. ñëw ci biir jotaay bi nag di nuyu suñu kilifa gi ñu fi fekk muy suñu sëriñ di wóllëre di soppe muy Cherif Ibrahima Aidara sëriñ mi ne ñu lay ziyaara bu baax di la bu baax di nuyu imaam di ko ziyaara di ko nuyu soxna Asiyatu si bu baax di ko ndokkeel di ko ziyaara di ko tatagal bu baax ak di bég bu baax ci moom di nuyu daayira bi yëpp président présidente ak ñi ñu bokkal liggéey bi yëpp baara sëriñ mi ne ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ko nag ak ndokkeel yaag ñi nga bokkal liggéey bi yëpp di nuyu soxna penda ak ñu bokkal liggéey bi yëpp di nuyu xale yi ngeen àndal ci liggéey bi ñoom Mouhamed Thiam ak ñu ko bokkal ñëpp nag am mbégte mu rëy nag Chérif bi ne jërëjëf ne waxin yii lañu war di wax nit ñi seen diine ak seen jikko ne loolu moo ëpp solo loolu moo ëpp solo rawatina julli bi nga xam ne. nee julli dong mooy bagage bi nga xam ne. ëpp ay leer ci mboolem lu moo ëpp ay leer ci mboolem lu yàlla jox doomu aadama. te nag lam lay jëriñ ëllëg. te wax nga ko ci sa waxtaan. wax nga àddina nga koy wute. àddina nga koy wute. jëfandikoo. àddina nga ko fa. door a dem fekk ko fa. ndax Papa Alaaji Abdou sëriñam dafa daan wax ni. oto bu dee daw guddi. muy jëm fa muy fa muy gaare fa muy ko fay jiitu li muy yërëm fay jiitu ba ak ba ak ginam rafet fa ba ak ginam rafet fa loolu mooy julli ne loolu mooy julli sa leer moo lay jiitu sa leer moo lay jiitu soo demee fekk ko fa soo demee fekk ko fa te yàlla te lu daf koy mu dund naturam lu daf koy mu dund naturam ndax julli ndax julli ca kaw la ko yàlla joxe yonent yàlla Muhammad. ca kaw la ko yàlla joxe yonent yàlla Muhammad wa sallam. waaye ruux itam nag. ca kaw la ko yàlla wàccee. ca kaw la ko yàlla wàccee. mu nekk fi nun mu nekk fi nun bu dee di ñëw itam. bu dee di ñëw itam. ma ngay buddikoo waat ca suufi suñuy tànk. ma ngay buddikoo waat ca suufi suñuy tànk. fokk suñu bopp te du naaj. fokk suñu bopp te du naaj. delluwaat ca kaw. delluwaat ca kaw ba mu jóge woon. te julli buy dellu. te julli buy dellu. lu mu a yóbbaale. lu mu leeru julli nekku ca. te leeru julli nekku ca. yow sa bàmmeel. yow sa bàmmeel. ak leer du ca mën a jot si. ak leer du ca mën a jot si. ndax leer ngay jot ci sa bàmmeel. ndax leer ngay jot ci sa bàmmeel. ma ngay ma ngay jóg ma ngay soqeekoo ma ngay soqeekoo ci sa ruux. nit tay sa biir bàmmeel. nit tay samp sa biir bàmmeel. boo doyodelee julli. boo doyodelee julli. du mën a demee noonu. du mën a demee noonu. boo dul julli sax moom da dul nekk sax moom da dul nekk sax kon julli. kon julli. jar na topp. jar na topp. a toppatoo. jar a toppatoo. man de wax ne. moom de su ma woon julli. dina topp sincérité. wax ci sama testament. wax ci testament. ne bu ma faatoo. ne bu ma faatoo. ku ma jullee yàlla nga dee. ku ma boo soxlawul doo ko def doo ko def war nga ni war nga ni buma ma ko kenn defal bu ma ko kenn defal te sax te sax ki la koy defal ki la koy defal moo ko def sax moo ko warta def sax waaye yow jiitu ko ci sa bopp rek waaye yow jiitu ko ci sa bopp rek nit day bëgg nih ndax nit day bëgg boppam lu bañ na ko bañ lu mu bañ rek na bañ ba faaw lu bëgg na bëgg ba faaw lu mu bëgg na bëgg ba faaw ni nga traité thème bi ni nga traité thème bi jarul ñu koy jëme feneen. jarul ñu koy jëme feneen. neex nañu. neex nañu. teg nga ko ci xam-xam. teg nga ko ci xam-xam. teg ko ci xëpp nit ñi. ni yàlla xëppe nit ñi. yàlla xëppe nit ñi. tegtal yu leer nañu. tegtal yu leer nañu. wax la cay jariñ. wax la cay jariñ. wax la cay am ay lor. wax la cay am ay lor. su ko borom deful. su ko borom deful. nee nit dafay julli. julli kër goo dem kër goo dem kër ga doxul kër ga doxul amuñu dépense amuñu dépense dëkk ci xat-xat dëkk ci xat-xat bu ñu rayoon ci julli rek bu ñu rayoon ku dul julli rek mbaa ñu génne ko kër ga rek mbaa ñu génne ko kër ga rek léegi kër ga naat léegi kër ga naat waaw waaw lu doxul ci kër rek nee lu doxul ci kër rek ña doyul julli ña doyul julli ak ña dul julli ak ña dul julli ñooma ñooma ne wax nga dëgg. maam Serigne Touba. maam Serigne Touba. yàlla nañ ko yàlla fayal. yàlla nañ ko yàlla fayal. moom li mu wax ci kudul julli. moom julli. moom sax dem na ba ne. moom sax dem na ba ne. même bu nu koy suul. même bu nu koy suul. nañ jël mandaari yéen yaakaar ne. nañ jël mandaari yéen yaakaar ne. tekki wuñu lu bàyyi. ñu yóbbu ko. ñu yóbbu ko. bu nu ko yóbboo itam. teg ko ci ba teg ko ci bàmmeel nañ jël ak nañ jël ak lonku xëcc ko mu ni bépp ci biir bàmmeel bi bu nu ko suulee bu nu ko suulee nañ tuxuñ caxañee bàmmeel ba bu ñu raay bu mu rafet bu ñu raay bu mu rafet waaw moom loolu la nee maam Serigne Touba moom loolu la wax jël lu mel ni rato rek lu mel ni rato rek xëcc ko rek xëcc mu ni liw liw ñii ñoo xam luy nee ñii ñoo xam luy julli jëriñ. ñoo ñoom ñoo ko xam. yàlla leen yàlla fayal. leen yàlla fayal. wax nee wax nga ko ci sa waxtaan. kenn ku ci nekk la nga am. diine moo la ko may. moo la may. te foo foo dëkk fu nekk. fu nekk. jàkkaa ngi ci sa ngi ci sa ci sa pegg. wala ci sa biir kër. wala ci sa biir kër. nee loolu ñëpp ko gis. ñëpp maa ngi lay gërëm bu baax. sëriñ bi nee mi ngi lay gërëm bu baax Chérif. wax na la bataay ni la. wax yàlla dogal na. yàlla dogal na. nga nekk Chérif. nga nekk Chérif. waajur yu baax jur la. waajur yu baax jur la. waaye man de. waaye moom de. formal naa la ngir Chérif. formal na la ngir Chérif. waaye bëgg naa la nag. waaye bëgg na la nag. respecté la respecté la. ngir sa yitte ngir sa ndax nit ku ko mën jur. ndax nit ku ko mën jur. te amul yitte. te amul yitte. du tax mu doon kenn. ne. nee Serigne Fall dafa daan wax ne. maay doomi diw. maay doomi diw. amul solo amul solo. doomi diw ràkkal. doomi fexe ba doon diw. mën a niinal ceeb bi. mën a niinal ceeb bi. boo doonee ràkkal nag. yi yëy la. xar yi yëy la. <laughs> yitte. nee loolu mooy yitte. yitte lañ la jàppe. yitte lañ rafet trop. nee seen wóolere rafet trop. yàgg lool yàgg lool. ñu dugg ba bokk lu bari. ñu dugg ba bokk lu bari. démb sëram. nee démb sëram. daf ko woo téléphone. coupé. coupé. woo sëriñ bi. ma ne ko mag sëriñ fa toog. ma ne mi ne ko mag sëriñ fa toog. mu ne wax na ma ne yéen a nekkoon foofu. mu ne wax na ma ne yéen a nekkoon ko ba tey ñoo nekk. ma ne ko lu xew seen biir kër. lu sërëm. bu demoon tey wax ak moom. sërëm maa ko jox mbir. moom mii moo ko jox wér. su demoon wax ak moom. su demoon wax ak sëriñ. am fu mu àgg. am fu mu da ko naan da ko naan. demal ci sa sëriñ. demal ci sa sëriñ. nit day référé wu ci sëriñam. nit day référé wu sëriñam. xoolal bi sincérité. yal na la yàlla fay. Chérif yal na la yàlla fay. yal sama borom defal mucc. yal na la sama borom defal mucc. Eh, ñun day fonk nañu la lool. nee ñun day fonk nañu la lool. géejewaay daan na fi bari tànk. nee géejewaay daan na fi bari tànk. lan la fi wutati. la fi wutati. sama jot mayetu mayetu ko ko. te fu ñu waroon taxaw. te fu ñu waroon taxaw. bu fa taxawee. taxawee. lam fay wax. lam fay wax. mënuñu koo wax ñun. ñoom ñii mënuñu koy nangul la ko yàlla may. man de mucc képp. nee moom lay ñaanal. rek rek rek. yal na ko yàlla defal yal na ko yàlla defal. nit ku yiw nga. nee nit ku yiw nga. saa yoo xëyee suba ba ngoon. saa yoo xëyee suba ba ngoon. fu njaboot Cheikh Sidi Aji Malick nekk. fu njaboot Cheikh Sidi nekk. di nga fa dem. di nga fa dem. xew woo leen dégg. xew woo di nga fa dem. di nga fa dem. loo xewle. xewle ñoom nga cay jiital. ñoom nga cay jiital. lii lii nag. ne lii nag. lu ñëpp gis la. lu ñëpp gis la. te ñun loolu rek la ñu am. te ñoom ñii loolu rek. ñooñu rek la ñu bëgg. ñooñu rek la ñu bëgg. ñooñu suñu référence. ñooñu suñu référence. waaw tey boo jékki-jékki woon. ne tey boo jékki-jékki. ni man shérif la ni man shérif la boole woo leen ci ñoom. boole woo leen ci ñoom. tere ña nga mën a àndal nga ànd ci ak ñoom. nee du tere ña nga mën a àndal nga ànd ci ak ñoom. te ñun ñooñu ku leen bëgg ñu bëgg leen. ñun ku leen bëgg rek ñu bëgg leen. ku leen respecté ñu respecté leen. respecté ñu respecté leen. te défenseur nga ci seen biir. te défenseur ci seen biir. ci la ñu gis. ci xam ko xam ko. ni ngay défendre kër Seydi Hadji Malick. ne ni ngay défendre kër Seydi Hadji Malick. di ko défendre moom ci boppam. di ko défendre moom ci boppam. bari na njëriñ de. ne bari kon jërëjëf. kon Chérif jërëjëf. jërëjëf. ñu ngi lay gërëm. sëriñ bi nee ñu ngi lay gërëm. di la di ànd ak yow di sant. ànd ak yow di sant yàlla ah. ne lii nga wax nag keroog ñoom ñii bi ñëwee waxtaan ak sëriñ bi ñu xool dat yi ñu xool dat yi waxtaan waxtaan dama leen wax ni leen dama leen wax ni leen dem ci shérif mu xool dat bu ko wóor ni mu xool bu moom dina ko arrangé moom dina ko arrangé mooy gën ndax mooy gën su ma ñëwul su ñëwul moom fekk moom. moo ko jàpp moo ko jàpp. li ma leer mooy lu mu jàpp. li mooy lu mu jàpp. te fekk ko ci réew mi. te fekk dina ñëw. dina ñëw. te man na maa jàpp dat. te man mën na maa jàpp dat. te du ma ñëw te du ma ñëw. ñëwul ñëwuma nag. ñëwul nag. bu rëy lay doon. crise bu rëy lay doon. tuub bu mag lay doon. ndax nit ñi. ndax nit ñi. koo ne moom laa àndal. xewle te gisoo ko. xewle te gisoo ko. dafay doon kersa. dafay doon kersa. mën a yàq lu bari. lu bari nag lu bari la yàq nee lu bari la mën a yàq te moom amuma jot amul jot ay xew yu officiel yoo xam ne nee am na ay xew yu yoo xam ni ci kër Cheikh Sidi Hadj Malick ci kër Cheikh Sidi Hadj Malick ci xalifa bi raw xalifa bi rawatina ci loxol xalifa bi xam sax am na ñoo sax comme que daf ma ci daan yónni comme que daf ko ci daan yónni direct dañuy ñëw rek directement dañuy ñëw rek directement wax ak man wax ak moom ñu jàpp dat dootuma am droit dem feneen. dootul am droit dem feneen. la lu ma ndax loolu ndigal la lu mu yenu moom mi. loolu lu mu tombeel. loolu lu mu tombeel. loolu day day mën suuxal. day lu mu tombeel lu mu tombeel. nee kon. jërëjëf rek. jërëjëf rek. jigéen ñi. jërë ngeen jëf. jullee ngi noonu. fonk leen ko. fonk leen ko. te di ko doxal. te jàng. te lu mu néew néew. lu ngeen jullee. ndax. ndax. waxtaan naa ci tey ci suba. mbooloo ci àll ay mbooloo ci. ca tool yi laa jóge nee ca tool yi la jóge. ñëw ci bi. ñëw ci rob bi. kër Omar Sy. Euh, nekk fa ak sëriñ Abdoul Aziz Al Amin. ba ñu bokk jógandoo. léegi ci vingt heures léegi. gis ci la a agsi fii. la door a fii. ci place bi. ah. yal na ko yàlla jéggal. yal na ko yàlla jéggal. yal na yàlla aljana ci bàmmeel. yal na yàlla branche aljana ci bàmmeel la. am yitte la woon. nee góor gu am yitte la woon. ci diine ji. ak ci kër Sidi Hadji Malick. ak ak ci taxawaay bu ci wàllu daara. ci wàllu daara. nekkoon défenseur moom ci diine. ak ci xadara bi ñu bokk. yàlla defal njéggal. jàngkat yi maa ngi leen di nuyu. jàngkat yi mi ngi leen di nuyu. maa ngi leen di ziara. mi ngi leen di ziara. maa ngi leen di ndokkeel. mi ngi leen di maa ngi nuyu woykat yi. maa ngi nuyu. ba pare. ba pare. Cheikh Sow ñëw ni ko. Cheikh Sow ñëw ni sëriñ. man de sa nuyu bi tey moom. man de sa nuyu bi tey moom dama cee bari lu ma ah ma ne ko maa jàmm la. mu ne ko maa bi nga ne maa ngi nuyu waykat yi. mu ne bi nga ne maa ngi nuyu waykat yi. daal wax dëgg noonu gënalu ma. man daal wax dëgg noonu ndax boo ne maa ngi nuyu waykat yi. ndax boo maa ngi nuyu. ah day dugg. Youssou Ndour dugg. Thione Seck dugg. Diallo Mbaye dugg. dugg. Kiné naan maa jàngkat yi. muy ñun rek. muy ñun ko kon Cheikh maa ngi nuyu jàngkat yi. maa ngi leen di nuyu bu baax. sëriñ bi nee leen di nuyu bu baax. sëriñ euh, foofu lay yem. sëriñ bi nee foofu lay yemale kàddo. amul benn bu may dugg ci waxtaan. amul benn débat bu may dugg. yéen fu ngeen nekk déglu leen moo jaadu ci ñun. fu ngeen nekk déglu leen moo jaadu ci ñun. lu ngeen wax ñu góorgóorlu ca. lu ngeen wax ñu góorgóorlu ca. bu doon doon luñ doon jëfee. ñu ñu gën a ñu. ñu gën a sawar. gën ca mokkal. gën ca bu ñu jëfee woon. bu ñu jëfee lu ñu jëfee woon. am am tiit te góorgóorlu te góorgóorlu suñu sëriñ bii nag suñu sëriñ bii nag di soxna asiyatu yal na la yàlla dolli euh, sëriñ bi nee nit ku xàmmee ngi nii soxna su xàmmee la soxna su xàmmee la ni muy jëflanteeg yow yow noonu lay jëflanteeg moom jëflanteeg moom mii musuma gis lu muy yëkkati lu muy yëkkati lu muy yëkkati di ko doxal di ko doxal ci li muy def yëpp. action bi yëpp. action bi yëpp. te du dina ñëw. te dina dina ñëw ba ci kër sëriñ bi. ñu déglu. mooy ni may sàkkoo. ni may sàkkoo ndigal fépp. laa koy sàkkoo. laa koy ci yow. ni may sàkkoo ñaan ci fépp. ni may sàkkoo ñaan. ci yow. laa koy sàkkoo ci yow. ñu sottante xalaat. mu laaj ñu. laaj ñu xalaat. laaj na mu rafet. xel mu rafet. ñu waxtaan. ñu waxtaan. jóg mu door a jóg lu mu mën a doon jëm ci lu mu jóg ba léegi depuis mu jóg ba léegi sëriñ bi nee mi ngi bu baax yàlla dina la defal lu baax yàlla dina la lu baax ndax ci lu baax nga nekk ndax lu baax ngay wut lu baax ngay wut moom ngay doxal moom nii rek la nag nee te nii rek la yàlla na la yàlla defal mujj man bàyyi nañ la xel ñoom bàyyi nañ la xel trop lool lool lool lool lool sax nga nuyu ko sa am problème. ne léeg-léeg bu ndax moom nee na leen kër si laaj Malick amu. fa maam amu fa maam. sëriñ rek la fa am. nee jërë ngeen jëf. jërëjëf baara sëriñ bi ne jërëjëf ne kontaan na trop nit ku yiw la nit ku baax la sunu mbokk la ndax ay mag ndax mook sunu ay mag ay promotionnaire promotionnaire lañu ñoo bokk jàng ca kel ah, ba ñu bokkaat ne école bu rëy bii tey école bu rëy bii tey jërëjëf yal na la yàlla baara ku baax la. baara ku baax la. baara nit ku yiw la. baara ku yaatal la. baara ku yaatal. borom compréhension bu rëy la. nee borom bu rëy la. Mansour sama doom maa ngi lay nuyu. bu baax a baax bu baax a baax. nee mi ngi lay encouragé nag. bu baax a baax. leen rek lañ lay sant. nee leen rek lay bul yàkkamti. ndax dinay faral di wax ne. ñi ma yàlla booleel. mënuma ànd ak ku yàkkamti. dina dina leen wax ne. nee dinañuy wax ne. ànd ak nit. ci diggante àndam ak nit. ak ñaar sama dara gaawu ci. dara gaawu ci. waaye nag ma ne. ma bu leen yàkkamti. bu leen yàkkamti. toogum yàlla. bu sottee. bu sottee. mën naa yàgg trop. door ñor. door ñor. waaye bu sottee. waaye bu sottee. faj xiif. ak nit nag. nee bu àndee yàlla. bul yàkkam bul yàkkam ci. bu kon kon. rek lañ lay dénk. sa nee sa papa na ko compte. ca takk ga. keroog ca takk ga. neena. Chérif nee na. am na lu ma ko bokkal sànq. am na lu ma ko bokkal sànq. waaye moom itam. bu leen. bu leen xew ba am enveloppe. tey la musa dem ba. dama dama dem xew lu yóbbu enveloppe. nee dafa dem enveloppe. guleet guleet tey. guleet laa wax. wax kat dem ci xew. dem ci xew. ñu jox ma enveloppe guléet guléet te bis bu ne mu dem fukki xew fukk guléet guléet kii de wax dëgg nee kii wax dëgg ci poosam la koy def nee naa de jommi nee tey jommi jommi jommi jommi naa dafa jommi ne moom ku koy xalaata jox xaalis guléet guléet ne guléet di guléet la ñuy wax sëriñ guléet la ñuy wax luy door rek am guléet ku ko wax day dolli ne xëy na moo tax mu ne guléet lu bari yàlla na yàlla doole sutura yi yàlla faj aajo ak jàmmi biir ak jàmmi jërëjëf jërëjëf wax nga wax ju rafet seede seede bu taxaw taxawaay bu rafet taxaw lu dul wees nii lañ koy liggéey doxal lay wees wala ku la ca wuutu mu doy sunna nga jëfandikoo jërëjëf imam Nana Assalamualaikum warahmatullahi alaykum ta'ala imam ahmad si mi Imam raatibu bujumaji ci suñu muhammad diba di naibam topp ci moom sës ci moom rek wax léegi ko imam ahmad si mi imam nak moo ne mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziyaare ñëpp di dokkeel ñëpp mu ne moom day kontaan na lool lool lool moo ko waa jàkk ji mu ne géejawaay yëpp kontaan nañ ci barab bii soppe na bi mu ne rawati nag sabab bii nga xam ne tey daayira soppe na bi moo ko sabab muy jotaay bii mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne lii ñu fi jot a wax mu ne ñépp bëgg nañ ci mu ne suñu wax bii tey mu ne rawati nag lii ñu jot a wax ci mbirum julli dem ci julli mu ne ñépp bëgg nañ ci mu ne bu doon suñu sago conférence bu ne conférence bu ne lum gàtt gàtt lum gàtt gàtt mu ñu dugal ci affaire yi julli mu ne ndax julli mooy njëriñal àddina mooy njëriñal àllaaxira nee na mu ngi ñuy ñaanal yàlla guddal suñu fan ñun ñëpp mu ne lii nga xam ne moom lañuy sonn di ko joxanteeg nit ñi ci jëm ci xam-xam. yal na yàlla yaatal xam-xam bi. may ñu wér. ak ñun ñëpp rek. Serigne Issa mu ne mu ngi sant bu baax Serigne Issa Touré. mu ngi sant bu baax suñu Serigne nee soxna Asiyatu Si. mu ne mu ngi sant daayira soppe na bi ak daayira yi ci gox bi yépp mu ne yal nañu yàlla may mu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu fekkee waxtu wii déwén ci barke sallallahu alayhi wa mu ne léegi nag lu jëm ci ñaan gi mu ne ñun ñëpp bokk nañ ko teg ci loxol Serigne Issa Touré alhamdulillahi rabbil alamin kon Serigne Issa ñaanal ñu déggal leen ndax sañ nañ digal ñu jàng faatih salaatul faatih ayatul kursi lixlaas falix ak naasi kenn ku nekk ñaan jàmm sutura wér ak mucc ñu baña a suñu kilifay diine suñu kilifay tarixa suñu kilifay famille ak suñu suñu bopp jigéen ñi yal na sëy yi neex njaboot gi yal na nu jub te juboo ñi sëyul yal nañu sëy ñi def examen yal nañu ko am ñi làmbatu liggéey yal nañu ko daj góor ñi yal nañu takk soxna ku ci amul liggéey yal nañu ko am ku ci bëgg leneen ci sa xalaatu sa projet yal ko yàlla sottal màggat ñi yàlla nañu wér mag ñi yàlla nañu màggat xale yi yal nañu doon mag gone yi yàlla nañu doon waxambaane ndax yooyu rekk fa nekk lu ca waaye toll rek ñaan la ca topp kon ñu njàng ñaan gi yàlla na yàlla bokk nangul ñu yaakaar nastain ihdina siraat almustaqim lima ugliqa walxaatimi lima sabaq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 ya wali dunia wal akhirati ya latifan fawqa kulla latif altuf bi fi umuri kullaha kama uhibbu wa ardini fi dunya wal akhirati innaka ala kulli shay'in qadirun بحق أسمائك وآياتك بحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وحد كماله